ci ñu leen nuyu bu baax baax leen ziar leen wax nag daleen a jàmm seen chaîne Dakar Togn tey ñu ngi fi seet si Pène fii ci Kër Massar Pène nag euh, euh, di artiste comédien Pène ñu lay nuyu la bàyyi nga ñëw askan bi maa ngi leen di fay yéen ñi nga xam ne yéen a déplacé wu ñëw si man maa ngi leen di fay ngeen ji fay di leen ñaanal jàmm ak salaam avant avant tout euh, parce que bunt kër boo ko boo koy fëgg di dugg kër dafa am bunta am fenêtre te balaa ngay dugg ci néeg bi ba di gis fenêtre ba danga war a nuyoo bunta boobu nag mooy sunu président Macky Sall fenêtre bi mooy première dame kon maa ngi koy ngi leen di nuyu ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo yore réew mi ba pare nuyu waa réew mi yëpp bàyyi ñu kenn képp ku bokk ci citoyen Sénégal rek ñu maa ngi lay di la ñaanal jàmm ak salaam di ko ñu nekk bitim réew ak leen ko ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a déplacé wu ñëw si man seen papa di ma laaj waaw bi nag neexut a wax parce que docteur rek ak docteur yi rek ñoo mën a wax si feebar bi te docteur bi sax ndagam feebar bi dem na ba xaw leen a jaaxal kon ñun en tant membre yoo xam ne duñu doktoor duñu dara duñu si mën a sore xanaa ñaan yàlla dëkk bi am jàmm ak salaam rek loolu rek lañ laa si mën a wax ndax euh, duma docteur duma sëriñ euh, sëriñ sax xëy na mën nañu gëstu di si xam dara wala docteur xam si dara ñun daal li ñu war mooy déglu loolu docteur lu ñu docteur yi wax pour ñu def ko ñu def ko ndax docteur dafa jàng loolu dafa ko jàng ba ba ñu ba qualifié si kon nag ñoom la ñu war a déglu lu ñu ñu digal ñu def ko waaw parce que docteur lu ma la wax ku si feebar da ngay dem da dem hôpital pour docteur kon bu feebar bi duggee fii euh, docteur yi nekk fi ñun dañu war a déglu docteur yi lu ñu nu sant lu ñu nu digal rek ñu def ko waaw bañ a rëy bañ a naan feebar bi amul feebar am na de am na. ñoom ñoom ñëpp docteur daal moom la ñu war a déglu ay si biiru ay nangam laak man de man Mamadou pen mii duma ni lii la duma ni lale la parce que lépp loo si wax du loolu fen nga te yàlla bëggul fen nañu bàyyi docteur yi nga xam ne ñoom ñoo ko jàng ñoom ñoo xam lan mooy feebar ñu dem bu ñu ne ñoom bu ñu waxee loolu la ñu xam ne lool la mais comme waxuñu ne du loolu la li ñuy wax mooy que doctor bi wax la lu nu mu demee ak naan nga ko war a faje waaw lu tax ñun du déglu docteur yi nag ah, c'est pas normal ni ñu déglu li docteur bi wax ah sunu kilifa réew nag ku nekk xam na ni mu ngi def kéemtalaay kàttanam wax dëgg yàlla képp ku toog déglu euh, son excellence Macky Sall mu wax xam nga ni carrément bëgg na jàmm réew mi comme bëgg na jàmm réew mi même euh, opposition yi ñu wax sax ñoom ñëpp jàmm réew mi la ñu bëgg. gis nga démb ba mu leen wooyee ñëpp dañu dem kon ñu xam ni réew mi ñëpp ko bokk waaw muy opposition bi muy président bi ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi parce que ñoo bokk réew mi kon nañu déglu seen wax ku si dëgër bopp nag déglu waxu waxu réew mi ëllëg te ñoom xam nañu ne feebar bi di la très dangereux nañu déglu waxu docteur yi bu nu ko dégluwul nag lépp lu ku ko si dégluwul lu la dal yaa ko teg sa bopp man man loolu rek laa si mën a wax mais feebar bi moom feebar bi moom daal waaw ah, man daal xam naa ni man mi nga xam ne damay gëstu di di di di di di composé ay wax sax man xaw naa jaaxal ndax man euh, bi mu duggul si réew mi man li ma li ma li ma li ma impo li ma improvisé man sama xel euh, bu ñu ma dégloo ne nag dama ne am naa xam-xam aw ma xam-xam de waaye dama xam ni moom bu mu duggagul si Afrique booba Afrique amagul jafe-jafe kon bu mu duggee la musiba dugg kon mën naa ni musiba la ñu ko war a tudde waaw te bu ñu bu moom bu ñu ko xejalee si réew mi dafay indi balaa sunu kaw déggul baa baax fi may waxe waaw kon nag comme musiba dugg na fi nañu nañu nañu ñaan ci yàlla sunu borom. te ñaan si kàttanam yàlla mi nga xam ne moo man moo am mooy def mooy dindi yàlla musal nu si waaw si kàttanam waaw comme euh, dóoru policier ak askan wi moom boo juutul nit ki doo ko dóor wala déet doo gis nit dóor ko te defula dara mais état bu demee ba jog bëgg réew mi am jàmm ni nañu def nii nit ñi ñoom itam war nañu euh, jéem a def loolu état wax parce que état kenn du xeex ak moom te comme wax nañu ko depuis barka démb ni suba couvre-feu dafay am huit heures ku mu fekk sa kër toogal ma yaakaar kon nit ki fu mu mënti dem bala boo mënuloo dem fu sore ba pare bëgg a toog ba huit heures mooy nga bëgg a ñëw sa kër doo ko mën normalement bu ñu ne laa huit heures normalement fu la cinq heures fekk préparé wul nga jël oto nga ñibbi ak lu mu sore sore bu dee si biir dakaar la daa yegg sa kër si kàttanu yàlla waaye boo bëggee toog nag ba sept heures moins wala ba sept nga bëgg a am door a arrêté oto pour ñëw oto boobu xamuloo ban heure la yegg embouteillage mën naa am. oto bi du du teel a yegg te boobaa mooy indi problème yi am démb si sama gis-gis man ah nit ñun daal population bi noo war a góor góorlu ah, def li ñuy wax ndax feebar bi bu ñëpp defee couvre-feu couvre-feu comme li ma si xam xëy na lee état bi moo xool ni na def couvre-feu bu ko defee léegi guddi gi mu mën a am lu mu def wala mu am lu mu xool waaw du dëgg ñun nanu sóoraale loolu di def sunu xel si loolu man ni ma ko gisee daal mooy man daal man bokk man man lu ma lu ñu ma lu ma état sant waaw parce que kenn xamul docteur yi ñoo xool ba xam ni ba ba yaakaar ni xëy na bu bu ñëpp tëddee kenn doxul kenn deful dara mën nañu mën nañu inspiré wu pour xam dara yooyu yëpp mën na nekk du démb lañu barke démb la ko waxoon lu tax ñuy dëkk kees demuñu démb ñibbi doo ma tontu barke démb la ñu ne suba mu leer na ne état bi moo jox pour wax ak armée bi bu ñu nee suba la man ma ñibbi. gars yi tamit yaakaar ñu woon nag moom état bi. yaakaar baaxul de waaw. bu bu doon nit ñi kese ñoo wax ne population bi mooy wax ni sax man nga ni nanga ma naam mais état moo wax armée bi wax bu état waxee armée wax fulla ak fayda ñëw na parce que gis nañu loo xam ne loolu la ñu war a def moo tax waaw bëgg jàmm réew mee tax faraluma état de waaye man sama xam-xamu bopp wax waaw xam nga sànq rek ma wax si si affaire feebar man la docteur moo mën a wax nit ñi euh, feebar bi nangam ak nangam te même même docteur yi feebar dafa leen jaaxal kon kay bu ñu nee nañu toog si kër gi ak nañuy raxasoo bu nuyoo bi nañu def nii rek parce que ki ko am mën na la nuyu sa loxo fekk boobu sa loxo raxasuwoo ak euh, kii bi euh, ni mu tuddati bi mu wàlla la waaw kon ñu def ni nuyoo bi nga xam ne moom la yàlla gën a bëgg moo dellu si waat asalaamualeykum wa aleykum salaam loolu la yàlla delloo si yàlla mooy wane dooleem nag si côté boobu